naag sagoom boo paree xool ba xam xool baa ngi dox waaw wala déet li may njëkk def mooy maa xool nàcc nàcc ñetti xeetu moo am nàcc nàcc biti ak biir ak boo xamante ci pax yi ko yàlla sàkk ci lay génnee li may njëkk xool nàcc nàcc biti. solos formation bi nga xamante ne moom lañ defal élèves mooy dañu nekk ci formation secourisme Croix-Rouge di ko def at mu nekk donc ñoom. ñu nekkoon ci contexte boo xam ne contexte pandémie Covid la depuis boobu tax xëy na seen formation bi xaw na yàgg tey ñu àgg ci càppandaw gi muy bis bi nga xamante ne nii dañ leen a war a évaluer évaluation bi ñuy def nag képp ku ci jàll ci examen bi da ngay am li ñuy wax sa diplôme secouriste bu boobaa da ngay nekk koo xam ne nii tu es un secouriste diplômé euh, lii solo si nag moo di euh, secourisme buñ ko déggee ci olof mooy xettali doomu aadama bu nekk ci tolof tolof. donc muy ci ay gaañu gaañu wala ci ay mettit ak lu mu mën di doon nga mën a ñëw xeetali ko ci loolu mu nekk donc nasaraan di ko wax ne porté secours aux personnes vulnérables dem nañ sax ba romb li nga xamante ne nii mooy xeetali nit ki am gaañu gaañu mais nit ki nga xamante ne nii dafa néew doole wala mu nekk ci position boo xam ne dafay laaj ndimbal donc dañuy intervenir ci domaine boobu donc ci loolu lañ leen tàggatoon ba tey ñu egg ci bis bi nga xamante ne nii dañ war a nat xayma leen seet ñi nga xamante ne yelloo nañ am diplôme bi ñu daal leen koy jagleel. formation bi yëg-yëg biñ ci am mooy dañ ciy am satisfait am ci kontaante parce que par rapport que boo boo boo ñëwee booy ñëw di def ci inscription maanaam melokaan bi ngay mel ak li nekk ci yow boo defee formation bi di nga xamante ni c'est diamétralement opposé am na lu bëri loo xamante ni sensé nañ ko ci yow. élève bu nekk ak mission bu pare am na ñoo xamante ni pour xettali doomu aadama moo leen tax ñu bëgg a def formation bi. am ñoo xamante ni buñ paree dañoo bëgg a liggéey hôpital am ñoo xamante ni pour am xam-xam bi moo leen tax di def ci formation bi moo tax kenn ku ci nekk ak sa ambition bi nga am pour ñëw def ko moo tax ñu mënuma cee sori mais bu dee man moom seri euh, particulièrement sama objectif mooy gis naa ne croix dañoo taxaw di xettali nit ñi ngir yàlla te loolu jaamu yàlla gënu ko rëy moo tax ma am ambition bi pour ñëw def si formation bi. waa tey li ma gën a marqué mooy comme examen lañ nekk. Euh, ñu élèves yi nga xamante ni ñoo daan dajeendoo ci école bi formateur yëpp soo paree am sa diplôme peut-être di nga toog ay fan ak weer yoo xamante ni dootoo leen gis ak miinante bi loolu moom xaw na ma marqué actuellement nii nii nii. tey dañoo nekk jour examen mu nekk loo xam ne élèves yëpp doon nañ ko xaar parce que kenn ku nekk boo nekkee ci waar ñaan nga yàlla yàggam yàggam nga pare ci tool bi nga góob bay nekk ci leneen. léegi nag lii comme que bis la boo xam ne ñu ngi ko doon xaar ay weeri weer kon bu ñëwee war nañ cee war a mën a teewlu bu baax di ci waslu àq li nga xam ne moo ngi tax a jug pendant mois kon ñu ciy toog di ci teewlu di def tamit comme ni ñu ko professeur yi jàngale woon rek ci kàttanu yàlla mission yi kenn ku nekk ak sa objectif li la tax a jug man moom xettali def ma mës a neex wàllum santé bëgg naa bis bu ma pare tey sama diplôme ma déposé ko ci hôpital yi su ma ci mënee am liggéey boo xam ne dina ma xetali man mun cee xettali doomu aadama yi comme jàng naa ni ñu sama mission mooy mu jug pour xettali doomu adama yi nekk ci jafe-jafe nekk ci tolof-tolof. Mhm. tey jii ñi nga xam ne bii ñi ngi fi doon jàng tey est-ce que nañ ci seen fin de formation tey moo nekk bis bi nga xamante ne bii ci la leen di natt pour daal leen di euh, xool donc pour ñu mën a ku ci am li nga xam ne moom la ñuy laaj ci ay poñ. donc nga bokk ci ñi ñuy wax pour nga jot sa diplôme pour mën a nekk nag volontaire gannaaw technique bi ñuy am pour wallu askan wi jóge ci ay jéeya ay accident dañ leen tàggat aussi ci xam-xam boo xamante ni bii naka la ñu war a mën a yee askan wi lu jëm ci nu ñu war a mën a moytoo ci yenn xeeti feebar yi ñu koy wax sensibilisation wax dëgg yàlla gis nga Croix-Rouge ñi ngi dox. liggéey ngir askan wi kon bu fekkee ne ñu ngi dem bay xaar ay jeunes defe naa ñi fi nekk te am yàlla def ñu am man-man boobu tim wala ñu gëstu Croix-Rouge ndax heure bu ñu gëstu Croix-Rouge gis lañ ci askan wi kon loolu bu amee aussi day nekk lu ñuy euh, rafetlu. nag nit ñi ak ku nekk li indi Croix-Rouge ndax fii am na ñoo xamante ni bii xëy na ba ñuy ñëw am nañ métier ndax am na ñoo xam ne fii tey Croix-Rouge li ñuy wax maanaam catégorie professionnelle am na ci ku ne am na ay jàngalekat am na ci ay chauffeur am na ci ay maçon am na ci lu ne. léegi nag am na xam ne bi dañuy ñëw ñoom ngir jàng ngir wut diplôme bi ngir mën a defal yàlla am na aussi ñu fiy ñëw wut diplôme bi aussi pour donc am liggéey donc am na ñoo xamante ne bi ñoom am na seen métier boo xoolee am na ci ñun donc ay jàngalkat am ñun ñoo xam ne bi c'est des infirmiers am na ñoo ay chauffeur lañ am nañ métier mais diplôme bi moo leen neex ñu bëgg Croix-Rouge ñoo bëgg am Croix-Rouge pour enrichir seen CV am na ñoo xamante ne bi donc wax dëgg yàlla diplôme bi lañ yaakaar suñ ko amee am nañ fu ñu mën a dugal ndax am nañ eh, eh, eh, diplôme bi ndax li ñuy wax mooy ay formation polyvalente examen yi day yàlla dafa def euh, dañu tàmm di ko def at mu jot Croix-Rouge di forme éléments yi nekk si diggante Touba ak Mbacké waaye ñu nekk si département bi ci commune yëpp yàlla def ñu tàmbali woon ko daaw euh, waaye bi ñu doxalee tuuti rek Covid bi ñëw gàllankooroon lu bari ci examen yi ndax mënatuñu woon a def dajale mbooloo ngir di leen jàngal loolu moo taxoon ñu dakkaloon ko bi nga xamee ne dem nañ ba xel yi xaw a dal ñu tàmbaliwaat cours yi ba egg ci nag tey ci cappaandaw gi ñu war leen a natt natt bu mujj ngir xayma leen ba xam kenn ku si nekk li nga jàngoon ak euh, li nga jot a def ci pratique yelloo na ngir ñu évaluer la ne admis nga pour nga mën a am sa diplôme croix rouge wala déet foofu daal la ñu toll tey mooy solo examen si nga xam ne tey ñu ngi ci comité départemental bu croix rouge Mbacké waaw ñoom bu ñu noppee koo ci xam ne yàlla def na nga jàll ci examen yi ba am sa diplôme Euh, Croix-Rouge lépp lu mu man dina la ko jàppale ci wàllu liggéey ndax yàlla def na Croix-Rouge Mbacké am nañu relation ak mbooleem euh, hôpital ak centre de santé poste de santé ba ci case de santé yi nekk si biir département bi wóolu nañ leen jox nañ leen loxo médecin chef district bu Touba ak bu Mbacké tamit ànd nañoo ak président départemental bu Mbacké ñuy liggéey liggéey bu am solo ba tax na tey boo demee Janatu wala Maloufa Seyni wala hôpital Diemoun lépp lu fa nekk ci ay brancardier wala sax ñeneen ñuy liggéey ci biir hôpital bi mën naa ne croix ñoom ñoo leen koy jox Euh, noonu lañ ko defee fii ci centre de santé bu Mbàkke ak yeneen poste yu bëree bari loolu tax na ba am nañ jàpp ne am nañ yaakaar ci ne comme bu fekkee demee na ni mu daan demee képp koo xam ne yàlla def na nga jàll te yàkkamti woo nga des Croix-Rouge yàlla mën na dogal nga am liggéey boo xam ne croix moom moo la si jàppale ba nga mën ko am incha allah